waaw may nuyu Medina yëpp di nuyu ñëpp yéen ñi fi taxaw di nuyu am di jàmm yi di wax ne nag tey xol bu fees laa taxawee di wax naqar boo xam ne amul dayoo ndax li ma gis tey c'est d'une cruauté indicible loo xam ni lu doy waar la waaye nag xaw nañu bañ a bett ndax li yëpp njortoon nañ ko samay waxi njëlbeen waxoon naa leen ne suñu victoire bi nga xam ni c'est quasiment acquis dinañ ko essayer xajamal par tous les moyens et j'avais lancé un appel qui n'a pas été entendu waaye tey ma taxaw di lancer ñetti appel bu njëkk bi may wax xale yi parce que sànq ba léegi man mi sama bopp sax ci fitna la nek xalé yi ne dañuy dem def lo xamni man d'accorduma si waye je les comprends je les comprends parce que liñ leen def dafa metti lol waye nañu dal nañu def confiance parce que ñu ay responsables nous sommes des républicains bo gisee ma taxaw ak maître El Diouf tay c'est parce que amna lo xamni xam ne faaw ñu aar ko ba pare donc le premier appel est que nous dal xam ni mën ngeen lu faites-moi confiance faites confiance à la justice de notre pays ñaareel appel bi mooy à partir d'aujourd'hui je vais lancer un appel je vais ko protéger nos femmes dans tous les quartiers créer des boucliers autour des femmes parce que nous sommes des lañu nous, sommes ñuy xeexal su donc à partir d'aujourd'hui on va se réorganiser Nous protéger les femmes parce que nous sommes des républicains mais des Yafous, Nous sommes des médinois de pur sang donc c'est ce que bi ñetteel bi je ngi lancé un appel parce que nous naa à l'État du Sénégal aux représentants des pouvoirs publics dans notre commune nous protéger les populations nous éviter lo xamni day ñaaw lool ci medina am fi parce que n'ak ñun luñ leen lu mu leen jaral la jaral nañu medina jaral lu buñu défé né ñun ay yaafus suñu lool duñ dugg ci lool wax na ko fi waxati ko nous sommes prêts sur tous les plans et fani di ñew inshallah en fonction de ni mi demee di nga xamni nous sommes prêts maître tu as la parole. monsieur le maire bu neexee inshallah incha rabbi le 23 janvier dina leer euh, xam nga appel bi lancé pour que force publique bi rôle ñi ko ay bandi lañu ñi ko criminel lañu ko ay lâche lañ ay jom ndax de attaqué jigéen même bu dee jigéen boobu jigéen la dañ ko yebal xam nga ne góor na ci ginnaaw mu yore ay layset di xotti moroomu jigéenam loolu affaire bu sauvage la affaire bu bu bestial boo xam ne affaire animal affaire affaire mala ñii nuñ ay nit ay mala lañu mala nag bu jógee di la màtt si tëb sa kaw da wut fetal wala bant aar sa bopp kon ni ko Cheikh ba waxee lu mu leen jaral jaral nañu ko parce que ñoo leen ëpp doole ñoo leen ëpp nit ñoo nekk ci nguur gi mais jëluñu nguur gi jiital ko jëluñu police di koy xeexee jëluñu état di koy xeexee kon ñoom ñi tekkewul dara yorewuñ dara ñoom mën ñëw di ñu doole seen toroxtaane la seen gàcce lay demee ndax dañ doon duma duma yoo xam bu fi ñëwee di tooñ ñaf leen ku fi ñëw dañ leen wax ngeen aar seen jigéen ñi aarale seen bopp ñun en droit dañ jàng nañu wax la légitime défense de soi et d'autrui yoon nee na boo gisee ñu bëgg a lor kenn ku la jege wala sa bopp am nga droit défendre sa bopp ku la bëgg a ray nga rey ko ku la bëgg a duma nga duma ko ku la xas nga xas ko ku la bëgg ñaf nga ñaf ko dama bëgg ñu xam ne ñoom moomuñu nit ñaa ah. dama dégg ñu naan dañuy terroriser jaay bandi yi bandi yi prison kii xotti tey Fatou Wade balaa farek yàq kanamam kooku place am tey mooy prison ak ku ko mën nag ba ci ka kaw a kaw ci ñoom seen groupe boobu mani yoon na def liggéeyam fii senegal jàmm moo fi am Cheikh Ba nit yi la jàmm la woote du xox du ragal de du xut ku foog ni dafa tàppal dafa ragal ndax jàmm la bëgg ndax yow wayu nga bandi nga boobu yaa ngi ci erreur ñi ma àndal bouclier bi am daaneen la faj wala leen ni la fii tàppet nekku fi fii ay góor dëgg fi nekk ay jàmbaar ku jaay bandi ñu faj la nag bandi nag moom place am prison rek ragal Vous ne prison dana Vous ren ci kaw nak yëfu bandi yi def mais buñu nit campagne bi Cheikh Ba parce que gañu ne ba paré buñu xajamal ndabam lu dara ndax ku neex xam nga mën ku neex xam nga ku mën da ko dul nangu ku neex xam nga ko mën sa cadre émérite, inspecteur des impôts et domaines, directeur des impôts et domaines, directeur de la caisse de dépôt et de conciliation. quand moi, laaj dëkk bi ben un certain Là là là lan la lan la non dama ni dama ni ban xam-xam la pour yoré ma bi eh eh képp xam-xam eh eh eh pour xam-xam eh ku mën ku mën alors kan moo am kan moo am xam-xam pour yokk Medina pour liggéeyal Medina pour jëriñ Medina mani attention Moodu Moodu baax na waaye du Moodu Moodu yëpp mën a yore Medina nag mani Moodu baax na waaye du Moodu Moodu yëpp mën a yore Medina Medina nag dafa dafa laaj xam-xam léegi développement bi léegi dafa laaj ko am xam-xam am xarañte waaye ñëw rek di wax rek te mënoo génne benn diplôme ma ne mënoo yore Medina Medina Medina dafa nekk dafa nekk cëru cër la ci ci ci ci lislaam Médine lay lay wuyoo foofu la yonent bi tëdd fii nit ñu sell ñoo ko war yor ay waay murit yeeg tijaan yeeg te bu mu boon ak ay murit ndax cheikh ba ñëpp la boole parce que de moo ñaay rek xalif général des murit ku baax ki borom reeju neex ji sëñ Mountakha Mbacké moo ko recevoir ñaanal ko ndax di ku yiw la noonu waaye bu fii na affaire ay murit ay tijaan cheikh ba moom mani chance la pour la Médina